una ixwatun loolu principe la nangeen ko jàpp fu ku gëm yàlla nekk sa mbokka bokk yàlla moo ko def ndax nee bu ngeen ko bëggoon a defal seen bopp du sotti law anfaqata maa fi l ardi jamian maa allafta bayna qulubi walakin allaha allafa baynahum yàlla moo boole seen xol yi yéen daal lim leen ci diggal mooy fa aslihu bayna axawaykum wattaqullah laallakum turhamun yéwén na leen bokk gi bu leen ko yàq ndax yàlla yërëm leen ñàkk yàq gi nag du looy def waaye looy bala du looy def waaye looy bala la ca jiitu mooy laa yasxar xawmun xaw xawmin bu kenn xeeb kenn bu ñu xeebante bu ñu xeeb bul naw sa juddu wala nga naw sa alal wala nga naw sa xam-xam wala nga naw sa mbooloo ba jàpp ne ñi ci des nekkatuñu sa nawle waaye dañoo war a nekk sab surga loolu amu ci bu kenn xeeb kenn loolu mooy garde bokk gi laa yasxar xawmun min xawmin ndax kat asa an yakoonoo xayran minhum ngëneel yàlla moo ko xam wala nisaun min nisa asa an yakunna xayran minhun gis nga aay yi mu teg yépp lu muy tere la xam nga ne laa yasxar waaye wala talmisoo anfusakum wala tanaabasoo bil alqab bu leen sikkalante bu leen di wut ay tur di ko tudde nit te moom tuddewul boppam noona ngir tur wa bëgg koo jaboliise bëgg koo féewal ak nit di bëgg koo ber tax nga wutal ko aw tur woo koy tudde moom la borom bi tere foofu wala tanaabasu bil alqaab bisa lismul fusuuqu baada al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun waxaat ne ijtanibu kasiran min azann wattandiku leen lu bari ci njort ñu bari nekk fa ñu nekk di jàngale lañuy jàngale di def la ñuy def jaxasoo woog ñoom xamoo leen dégg leen rek tax nga ñaaw ci ñoom njort loolu la borom bi ne wattu leen ko inna baada zanni ismun lenn ci njort yi bàkkaar rek lay jur wala tajassasu bu leen di nekk di yëddu di jéem a xam nit ki xibaar boo xam ne jógewut ci moom wute woo ko ci moom ndax loolu booba xibaar ba du man a mat wala yaxtab baadukum baada bu leen di jëwante di toog nit di ko traité mbiram fu mu nekkut bu ngeen ko dee traité dafaa war a teew lu ngeen ci xamul mu leeral leen ko lu ngeen ko laaj mu tontu leen waaye di traité mbirum nit te nekku fa lépp nekk ay tuuma ak lu ñu xamut moo tax borom bi tere ko waaye sax joxe ca image ne mook nit ki tiim mbokkam mu génn àdduna di ko lekk ñooyam a yuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi maytan fa moom kon bokk yii buñ ko sàmmoo tey ki kenn xeebut kenn kenn ayibalul kenn kenn wutul ay tur di ko tudde ay nit te ñoom bëgguñoo tudd tur woow wala tudduñu ko sax ñoom dañ ko tuddut ndax ab jullit moom jullit rekk la tudd na jullit ya tuddoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa loola ba léegi moo continuer huwa allasi sàmmaakumul muslimiina min qablu tuddale leen ay jullit ba noppi kon bëgg a séparé di wutaat ay tur yoo xam ne dañ koy tuddente loolu tey tas ummatan waaxida bi borom bi eh, tabaraka wa taala waxoon loolu moo tax kon eh, ñu war a sàmm bokk googu wattandiku yooyu mu wax yépp ne daf koy yàq gannaaw bu bokk gi amee nag al muwaala muwaalaatu baadihim baada kenn ku nekk jàpp ne sa moroom mooy sa péete wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkar wa yuqimuuna alsalaata wa yutuuna alzaka wa yutiicuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarhamuhum llah borom bi ne ñi gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi kenn ku ci ne sa partenaire moroom nga sa allié moroom nga sa péete moroom nga nu ñuy defante nag dañuy jayante déedéet ya amuruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar dañuy digleente lu baax di terente lu bon kenn ku ne war ngaa may sa moroomum jullit ci yow mën laa digal lu baax loo xam ne defoo ko wala nga fàtte ko wala xamoo ko war nga ko may itam mu mën laa tere jotti la la tereg borom bi ci loo nekk te waroo ca war a nekk ñu ànd di jaamu yàlla di topp nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam topp suñu borom topp yonente bi wa yuti'una allaha wa rasulahu ñu lañu dey suñu borom tabaraka wa taala dana leen yërëm ñeenteelu principe bi mooy nag ñuy dimbalante ndax diine ji liñ ci war a taxawe kenn mënu ko taxawe yow rek benn kuréel itam mënu ko taxawe moom rek moo tax borom bi ne kon wa taawanu alal birri wat taqwa yéen ñi gëm yàlla ñépp benn projet ngeen am boo xam ne moom ngeen bëgg a réaliser te ku beru doo ko man kon lu waay am ci ay effort na ko def ka am xam-xam na indi xam-xamam ka am alal ne indi alalam ka am daraja na indi darajaam ka am baat na indi baatam lépp ngeen boole ko wute ko ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala investir ko wute ko ngërëmul yàlla te kenn bañ caa wut sa yëfi bopp naka noonu juróomeelu principe ba nag doomu aadama ci ni ko yàlla bindee comme da koo joxum xel te xel mi day xalaat loolu moo tax léeg-léeg wuute dana am wuute dana am ci seen biir waaye su wuute ga amee borom bi wax na ni ñu koy regle foofu nag daanaka problème bi amul ci jamono yépp lool la mooy ay nit suñu wuutee kuréel bu mu ci mën a doon am na fa ay boroomi xam-xam ak i boroomi xel ñoo xam ne ñooñu ñoo war a traité wuute ga ñoo ca war a wax wa iza jaahum amrun min al amni aw al xawfi adaahu bihi walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu lasina yastanbituunahu minhum walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu la tabaatumu sheytaana illa xalila nee na wa isa jaahum amrum su mbir ñëwee ñu wuute ca ñu siiwal ko lool moo xam ci jamonoy jàmm la wala ci jamonoy ñàkk jàmm la nee na lañu war a def mooy nañ ko delloo ca boroom xam-xam ya nañ ko delloo ca ña nga xam ne ñoo yor baat te boroom xam-xam yi ñooñu ñoo yore war a yore baat bi ñoo war a jiitu nee na su ko defee ña am xam-xamu mën a xam lu ñuy attee loola danañ mën a génn atte ba ndax ñi nga xam ne xam nañu moom bu ñu toogee ci jotaay boo xam ne kenn rëxu leen kenn ku ne xam nga sa moroom kenn du fa bëgg a suufee sa bopp di fa wax wax joo xam ne mënu ko layal looy wax lu ne da ko wutal aw lay soo ko amul aw lay doo ko wax ngir bëggoo suufee ci sa naw lay boroomi xam loola su fekkonte ne mbir mu am mu nekk noonu lañ koy traité suñu juuyoog beneen kuréel délégué seen ñañ jàpp ne si ñooy seeni boroomi xam-xam ñee ñu juuyool ñoom itam indi ñi nga xam ne ñooy seen boroomi xam-xam ñu toog ci barab boo xam ne ñoom rek a fay ne ña ne ca seen gannaaw te egguñu ci néew booba duñ fa ne ñoom rek ñu waxtaan ci seen biir mbir ma dana ler même buñ ca juuyoo itam ittifaax bu mënta amit wifaaq dana mën a am mën a dëppoo bu mënta am déggoo am. xam ngeen ne borom xam-xam yi ñu jiitu woon surtout mazahibul arbaa yi yëpp amoon nañ ay ixtilaafaat amoon nañuy juuyoo waaye nag amuñu woonu réeroo amoon nañu wifaaq donte amuñu woon ittifaaq ci masala yëpp loolu kon la borom bi tabaraka wa digle ci bar rek mbooloo mi tas ummatan waaxida bi bañ a tas ñuy nekk ay camp yu feebal yoo xam ne jàkkaarlook beneen camp bi nga xam ne mooy bu iblis beeg ñi mu àndal bañ mbooloom jullit mi tas rek moo tax yi principe yëpp mu andi nañu mbokkoo nañu dimbalante nañu féetente kenn ku nekk jàpp ne moroomum jullitam mooy péeteem waaye su réeroo amee ña nekk ca seen suuf te xamuñu buñ leen ca dugal su ko defee ñoom suñu waxtaanee ba noppi génn seen déclaration ndax ña nga xam ne yaa leen jiite boo nee mbir mi ñu doon wax kat lii lan ca jàpp ñoom danañ daal di noppi fi waaye nag fi mu ne li am fi mu ne ci jamono jii mooy kuréel bu mu mën a doon. ña ca gën a néew xam-xam wala sa amuñu xam-xam ñoo occupé terrain ba ñooy wax di bàkk mbir ma ndax gannaaw bu ñu ko daggee nag ba jàppe ko seen mbirum bopp boo lee duñ ca ñettes des defe ne seen objectif bépp nag mooy rëyal ko ak naatal ko ak ëppal ko doole ci yeneen yi ci des su ko defee loola nag ku amul xam-xam moo ko dàq boroom xam-xam ndax boroom xam-xam moom mënta wax lu mu mënta layal amma ka nga xam ne nag bànneex lay waxee lu mu jàpp ne bu ko waxee ne kuréelam bi moo ëpp doole moo gën moo gën a rëy moom day wax rek su opinion publique bi mbooloo mi moom lañuy mujj faral wane na daal moom mooy seen leader ñëpp am xam-xam suñ ca waxee dara lu mel na luy jéem a daj lam wax la ñu ne ko kon yow léegi da ngaa féetee suñu adversaire yee waaw su ko defee far ñu far noppi ñooña far noppi bàyyee terrain bi ñoo ñooñu nga xam ne ñoom amuñu xam-xam coow rek ak rëyal ak tuutal ñeneen. rëyal la ñu ne rëyal goo xam ne duñu ko teg ci benn xam-xam ñooñu occupé terrain bi loolu mooy lii gën a tas féewaloo jullit ñi beneen principe bu juróom-benneel bi mooy nag jullit ñépp jëm a réaliser benn dig bu leen yàlla dig bu leen yàlla dig ñépp effort yi ñuy def foofu la war a jëm même bu ay kuréel amee kuréel bi waruñoo nekk effort ya ñuy def ngir bëgg rëyal seenu kuréel déedéet yow liggéey liggéey ci lislaam bu ci jublu sa mbirum bopp boo ko defee rek moo tax borom bi tudde ko samanan xalila wala tastaroo bi ayaati samanan xalila mbirum diine soo ci wutee àdduna rek perte nga moo tax kon dig boobu moom dig bi ne borom bi ne waada allahu alladina amanu minkum waada waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ardi wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtadaa lahum wala yubaddilannahum kama staxlafa lasina min qablihim wala yu makkinanna lahum diinahum allasi tadaa lahum wala yu baddilannahum min baadi xawfihim amnan gis nga loolu la borom bi dige waada allaahu allazina amanu minkum wa amilu saalihaat la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa allazina min qablihim yàlla dana leen wuutal ci kaw suuf teg leen fi ngeen yor ko yilif ko ni mu ko defale woon ñi leen jiitu woon mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi leen dëgëral seen diine ji diine ji am doole lu mu bëgg a doxal ci kaw suuf ci ndigalul suñu borom doxal ko ragal gi ngeen ragaloon ñu di leen terroriser di leen diaboliser borom bi dana leen ko remplacer kóolute wala yu baddi lan nahu min baadi xawfihim am nan waaye léegi nag lan la ñuy def nag ba réaliser waada boobu digub yàlla boobu mooy yaabuduuna nii laa yusrikuuna bii shay'a kooku mooy projet bu mag bi nag kooku ñépp seeni effort foofu la war a jëm ñu réaliser waadub yàlla boobu lislaam dëgëraat ci kaw suuf jullit ñi am ndam ci kaw suuf mën a doxal seen diine ni ñu ko bëgg a doxale loola nag sart ba am na ca lu leen suñu borom gàll mooy ñu wéetal ko jaamu ko duñ ko bokkaale ak dara yii daal mooy principe yi nga xam ne su ko jullit ñi sàmmoonte jàpp ne xeer bi wenn la kenn moomu ko ba di ko dagg ak a séddale jullit ñépp ay bokk lañu jullit ñëpp ay allié ay allié lañu ay péete lañu jullit ñi dañoo war a dimbalante jullit ñi dañoo war am ay kilifa muy kuréel bu mu mën a doon ña ca jiitu ci wàllu xam-xam ñooña loola mbir naqari naqari naqari bul jéem a fajal sa bopp bu ca wax dama wax ko kilifa gi rek bu ko yëgut bàyyi ko moom mu tereete loola waaye bul tereete sa bopp yow moo xam ci kuréel bu mu mën a doon nag bul doxee rek saw tàngoor ak sa mer dégg ku la attaqué wala dara nga nekk damay fayu may damay tontu déedéet wax ko ka nga xam ne mooy sa kilifa ca wet ga nga féete su ko defee mu lijjanti loola. Ah, bu dee ci wàllu daawa bi nga xam ne moom la ñuy def da gis ñoo xam ne dañu naan waaw yéen teewoon ngeen a jàpp seenu njaamu rek xam li ngeen xam te toog rek di jaamu yàlla bàyyi bàyyi nit ñi déedéet xam ngeen ne jullit bu nekk li gën a kawe ci lu mu bëgg mooy cofeel suñu borom tabaraka wa taala borom bi moo ne qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkumullah cofeel ak suñu borom googu yàlla da koo wékki ci topp yonent bi sallallahu alayhi sallam mooy tax nga mën a am yàlla sopp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it suñu boroom ne ko qul haasihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittabaani mu ne man dey sama yoone ngi damay woote jëme ci yàlla waaye woote boobu nag maa ngi ko ànd ak képp ku ma topp comme yow mi wut mbëggeelug yàlla te mënoo koo am ci lu dul topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it ne la topp ma mënoo koo am ci lu dul ànd ak man ci woote bi addoo ilallah ana wa man ittabaani kon loolu moo muti fi ab julit muy woote jëme ci eh, borom bi tabaraka wa taala eh, beneen ba itam danañ wax ne waaw dañ dem ca wa baaduhum ya fa nekk wa baaduhum wa baaduhum taraahu saa taamumi mutawija rasi ma talassumi tasabbuhan bil awliyaa saalihiin man hammuhu ridal jalili kulla xiin wa yaskurullaha kasiran bi lisaan te waxal buhu àddina su min kulli janaan hmm? wa baaduhum taraahu saaqi samtinaayi an nasari niswaani saaqinaayi nee na ñenn ji da ngay gis ñu ne ñoom duñu xool jigéen te wa annahu lawlaa uyoonu naasi la ne bi sinan aw faasi nee na budul woon ak bëti nit ñi mu sàkku leen ci njaalo boroom wa baaduhum yooyu ñooñee muy wax da leen a xamut kon nag loolu mooy woote wiinu lislaam loolu nag ñi ngi leen di xamal ne insha allahu ci la ñu fas yéene wéy li fekk ñi ngi dund ci kaw suuf ñi ngi leen di xamal ne itam ñu ngi defee ku mën a doon mu mën a génn ci sunuy wax fu ñu tudde dëkkum nit wala ñu tudd xew-xewum nit wala ñu tudd turi nit wax ca loo xam ne lu rafetul la ku ko mën a génn nga génn ko am maa nag jëf yu ñuy jëf muy xew ci kaw suuf moom te wóoteeg lislaam faw ñu di ko denoo se moom te loolu ci alxuraan lañ ko jële wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain